dalee nag jàmm seen a Sene Production ana nag waa fans famille sénégalaise mun nañu nag moo ngi si voie bi di ñëw ndax soreetul dara léegi nag ñu lancé ko si nag li nga xamante ne moo nekk mois bi nii sama gars yi série bi mën nañu nak euh, indi na ben introduction bo xamantene nak nag doy na waar trop ndax gis nañ ki di soxna bator ñew nak si këñam ki di fanta nak si jour xewam nan da koy ñew tuddel doomam alors que nak euh, sama gaay gis ngeen na seen digënté numu mu di mel man nak len rek moma jaaxal fan la ki di malal dal di tibbee soxna bator ba war ko ci kër gi tax nak su ngeen baye xel ke ni carrément ki di soxna ki te won na si galé bi a fait longtemps ba tax na sama gaay ñewat na si kër gi te neena ki di marlo mo yabal ki di euh, malal mu indi soxna Bator si kër gi sama gars yi histoire bi nag dina dëngaat carrément ndax ñun comprendre nañ comment ça se kii di soxna Bator ñu fase ko ba pare xewu jàmbur jot xewu fanta jot nga xam te ñoom ñaar def nañ fi def nañ fi lu nekk loolu moo gën a poussé kii di Marlo mu fase woon ki nga xam te moo nekk Soxna Batoor comme nag lan la Soxna Batoor di defaat si li nga xam te moo nekk série bi sama gars yi c'est un tamit dëng na trop li nga xam moo nekk introduction bi mais nag peut-être genre lancement la genre euh, extrait la buy wane que ni carrément série bi mu si voie bi ba nag euh, jarul inquiété wu jarul di xalaat ba sonn lenn rek la ñuy def mooy xaar nag ba épisode bi lancé wu ñu daal di nag xool nu muy demee lii di bandi annonce bi sama gars yi série bi dina méttiwaat trop ndax soo xoolee nag kii di euh, Soxna Batoor nar naa ñëw venger wu carrément si nag euh, li nga xamante ne moom lañ ko sibir la woon si saison 2 bi sama gars yi kii di Marlo moo nar am problème ndax euh, problème yu koy xaar si boppam ñoo bëri ba bëgga a dee te nag su ngeen bàyyi xel gis nañ nag ay nouvelle actrice yi nga xamante ne daal dinay apparaître si li nga xamante moo nekk série bi sama yi série bi va trop génial moo tax dama leen di éviter ngeen abonné si page bi bañ a tar nag benn analyse bu ñuy def si famille sénégalaise ndax secret yëpp fii liñ koy daal di dévoiler si seen production jaa ngeen jëf one love.